leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di ñaan yàlla mu nangul ñu mboolem jaamu gi ko ciy defal di ko ñaan mu tëbb ñu kàttan ak wér bañ defe ko ni mu ko bëggee tam dëppook sunna yonent bi alayhi salaam sunu borom mën na ko yàlla na ko def ñoo ngi nuyu sëriñ imaam di ko sant ci ubbi gi ubbi ci waxtaan wi taxawal ji yàlla sunu tabaaraka wa la mu gën leen a jàppale gën leen a dooleel ba fañ bëgg a yegg ci liggéeyal sëriñ bi ñu yegg fa nii ko sëriñ bi sëriñ imaam junje tomb bi ñuy joxoon ngir ñu laayante biirante ci mooy bi mu junj léegi mu jëm ci ab yar ak jeexit jim am ci doxaliinu ab taalibe loolu lépp itam ñu koy balloo ci njàngaleem sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu di xam na ne ku jóg di yare danga yaru ba noppi mooy ku jóg ngir bëgg a jagal danga war a jag ba noppi ba bopp nen te nag moom la abdullahi wa xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la jaar mooy dafa am ñaari tur yu mag yoo xamante ni rasulillah ñaar yooyu nag kum daje jag nga ba noppi war a mën a jagale mooy defaru nga ba noppi war a mën a defare tur woowu day muy abdullahi wa xadimu rasulillah wum fonkoon la gaa ñi mën nañ ko wutal tur yu bari waaye bii moom yaakaar naa ne ku ko ko tudde mu bëgg ca ndax lum ñaanoon borom bi la tabaraka wa taala nee na ñaan gam yàlla nangu xabib borom nangu na ñaan googee ñu ne ko loo ko doon ñaan mu ne nekk gi may nekk di jaamab yàlla di liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñaan gi nekk ñaan nekk jaamab yàlla nag moo tax mu tegoon yàlla moom sëriñ bi fu kawe fu mu tegut kenn daawu ko jaawat lenn ak may yi ko sunu borom may yépp nag daf daa teg yàlla barab bam yelloo teg yonent bi alayhi salaatu wasalaam barab ba yemu yellu ba tax na li ko suroom may ci ay may yépp ak lim tàggat mbindeef yi ñu nangul ko lépp teewut dadaa tàllal loxo moom sëriñ bi di ñaan sunu boroom yañ gën yaakaar ne yu yu néew la walla yu doyadi la ngir bëgg a jox yàlla rek ab cëram daana ñaan ba di ko ñaan daa ak kayit daa ju muy binde daa ju muy samp ay xalimaam di bind ak kayit muy binde ak ni ko nit ñi nangule woon moom sëriñ bi radiyallahu anhu waaye jox gi mu jox borom bi cëram yeggoon na ci muy ñaan yàlla lépp la koy ñaan ba di ko ñaan daa ju muy binde ak këyit wa habliyal midaada wal qirtaasa loola jox yàlla cër ak xam ne yàlla lum la man di may itam mooy yàlla nekk gim nekk abdullahi moo ko may waaye itam nekk mu nekk xaadimu rasul itam de garaatu boppam mu waxaat ci weneen bayib ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma ci daraja yi aji màgg jooju di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma nekk fii ak ëllëg tey ak ëllëg ma nekk di lëgant bi alayhi salaam yaa rabbahi kawni lahu huna wa fi gadin xadim loola kon itam nekkaat loo xamante nii day tegtale ne ni daan wooye boppam te mooy abdullahi di xadimu rasulillahi noonu la ko daan binde nga dem ca bayitu ñeenteel wa ca jazbul qulub li la xuyub mu fay wax ne maa ngi sant yàlla ngir jagleel gi ma jagleel may liggéeyal yonente bi nga xam ne mooy far njàqare yonente bu kawe boobu sakartuhu is xassani bi xidmatil maa xissani daa xidmatin fil alani lahu wa fakka walami nee na maa ngi sant yàlla ci jagleel gi ma jagleel ma nekk xaadimu rasul di liggéeyal yonante bi ci lu biir liggéey boobu itam dañu ma di ca continuer di ko wéyal bam dajji sama jéng waaye loola itam defu ko benn bis ba defu ko ñaari bis ba defu ko weer ba wala at ay ati at la ca nekk tëë ba ba sunu borom wuy si ko naa naajaytuhu jalla awaaman wa karramani nee na dee yàllante ak sama borom ay at ay at waxut ay weer ak bis ay at la wax loola ñu cay jàng ne kon ku sóobu yoonu yàlla waroo yàkkamte nekkal ci ak njub rek ak lum yàgg-yàgg ak at ya lum diire diire sunu borom dana la wuyu naajaytuhu jalla awaaman wa karramani déewelante naa moom ay ati at fay ga doog du ñëw mooy wa karramani takrima haadin wa kulli min laxan bari a mu waxaat ca geneen xasida ga ne naajeytu rabbiya sinin bi ay at at waxut num toll sax waaye ay at la wax loola tegtale ne kon li tax mu defaru ba mën a defaree jël na temps bu yàgg yàgg yàgg doog di yegg ci garaat boobu moo tax mu leeral ko ci wenn bayit ne fa ma jaar man Sëriñ Tuubaa fa ma jaar ci ab coona laa leen bëgg a wax yee leen ci ba ngeen xam ne li ma am jaar naa ci ay coono yu mag doo koy am nabbahtukum ala kaddin bada lii qabla an ara ridan mu abada loola kon ba tey maa ngi ci yoon wi jaar ba defar ba mën a defaree ba yar boppam ba mën a yar keneen ndax ñu xam ne ku bëgg a defar nit ñi da war a am foo jaarale sa bopp wala fuñ la jaarale ba nga jag ba noppi doog di mën a jagle moo taxoon mu waxoon ba tey ngir firndeel loolu ne man Serigne Touba day sama bànneex ak sama bëgg-bëgg yépp mu ngi jëm ci yàlla may aji dëggu hawanan taha lil xaq te itam sama diine mooy diine ju déggu ji wal xaqu diinu naa waaye ñu ne ko foo jaar ba sa bëgg-bëgg bépp jëm ci yàlla foo jaar ba diine ju dëggu ji di sa diine mu ne bi ixdaami di rusdin nangu gi ma nangoo di liggéeyal boroom jub ga te ma yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom moomee nga xamante ni ku jub moo la jubal hada kulla mursidi moo tax nag mu fonkoon tur yooyu lool bari di ko ubbee ay xasidaam jaalibatul maraaxib yaquulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumaatuhu muhammadu kon ñu xam ne foofu ma jaar ba sunu borom baaxe ko mu defaru ca la teg tànkam nag ba mën a defar keneen yàlla nag jox ñu ko mu nekk xéewal goo xamante ni bi muy feeñ fii ci biir réew mi réew mi tolloon na ci ay jafe-jafe lool lislaam tolloon ci ay jafe-jafe kilifay diine itam am ay jafe-jafe mu amoon jafe yoo xamante ni noonu lislaam yi ñu ngi koy song lislaam mu jóge bitim réew dal ci réew mi ak jafe-jafe yoo xamante ni ci biir réew mi la tubaab yaa ngi woon ci biir réew mi not réew mi di tibb alal réew mi di yóbbu ba noppi itam àndaale seen diine nasaraan bëgg ko fee tasaare not nit ñi yóbbu seeni yiw bëgga not nit ñi itam ba nocc ci ñooy jañ muy andi nasaraan bëgg itam bu noppee moom tubaab bi ci waa Sénégal ñu yore xalaati tubaab nekk ay tubaab yu ñuul lu mu leen mu leen tere ñu bàyyi loolu ku nekk xam na ne ay jafe-jafe la woon waaye itam yoo xam ne xamantim jàll ba ci ñi samp seen bopp nekk kilifay diine gëm ay caaxaan ñenn ñi di laawaan ci alquran di ko foye ñenn ñi négliger sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba sunna nar a gàddaay génn mi lem réew loolu nag bi sëriñ bi yegsee xool wopp ji dal aw xeetam ba xam lan mopp ji ci la garab yi nga jooju bokk na ca nee na njëkk a taalif ay téere nag ngir xam nit ñi delloo si liwaat leen ngir ñu xam lan mooy lislaam dëgg-dëgg ak lan mooy sunna su yonente bi salaat wa tiku saare sunna si yonente kon loolu muy taalif anhu mu mel ne buñ la laajoon ne la sëriñ bi lim bind bari na ndax xam nga sabab su tax mu doon bind loola tontul nañu ko sëriñ bi nee na li tax mu yóotu xalimaam daan bari lu muy taalif ak di bind ay téere nee na dara jañu ko ci woon lu dul laa biire mbindeef yi bëgg leen a teg ci siraatal mustaqim daat nii ilal xatti nasihatu lil wara li wajhi alladi li qaada ajran wa asxafa nee na laa rek mooy li taxoon mu yóotu ay xalimaam di bind di taalif mu ne itam mbindam itam ngir delloo siwaat xam-xami diine yi ak yeesalaat yoonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam la bëgg yeesalaat te jël jumtukaayu bind nag ak taalif ginnaaw ba nga xamante ni yoon woowu yonent bi xàlloon dafa ràpp يبث علوم الدين خطي مجددا لنهج النبي بالنقل kon biñ dikkee moom sëriñ bi xam ne réer nit ñi moo tax sunna nëbbu xam ne moo tax ña déggoon sëriñ bi te bokkoon na ci aseex muhammadul murtada radiyallahu anhu waxoon na ne yàqute ko gis ci kaw àdduna réer ak ñàkk a jàng moo ko fi andi waaye nee na suñu fexee ba réer jóge fii tas xam-xam tasaaroo nee na yàqu te dootoo ko gis ci kaw loola da ko nàmpe ci way juróom ba di sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ndax moo waxoon ne soo gisee la fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi woon nëbbutu làqutu nee na la ko waral mooy réer gu tasaaroo hada wa innama alayhi li kasrati aljahli ala annaasi nee na la yonente bi yoon wam xàlloon li tax mu làqatu dara waralu ko lu dul ak kon ku bëgg yoon woo feeñaat nooy def mooy da ngay xëntewoo ci gën a tasaaroo te mooy li sëriñ bi def mu ne itam jaar-jaari saxaaba yu baax ya moom itam làqatu na te ñooña ñu amoon solo lañ ndax ñooy zawil huda wan nuuri wal ijaaba wa tabiatha siyaru saxaaba dawil huda wan nuuri wal ijaaba nit ñu baax ñi yi fi jaaroon itam andi woon seen ak jub lañ fi indi woon itam làqutu te ñooñee baaxoon nañ ci àdduna ndax ñooy dawit tuqaa wal ilmi war rusuuxi ñooy boroom ragal yàlla ga ñooy borom xam-xam ya ñoo saxoon ci xam-xam di ko sàkku di ko tasaare su talaahuma huda suyuuxi dawit tuqaa wal warul wa rusuuxi ba ko xamee nag ne jàng moo ciy génne nit ñi mu taalif ay di jàngale wëlbatiku samp ñuy jàngale moo xam ne jàng yi rek doyut nag waaye defar jikko yi ba mën a yegg ci yàlla itam mënta ñàkk mu ne nag ku jàng ba xam na ba noppi nag soo bëggee yegg ca yàlla nag na nga moy bu dëgër ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam man talaba alwusula lil jalili falyatasim bi sunnati rasuli na ngoy ci sunna ci yonent bi alayhi takkoo koo xamante ni tam xamante ni fa mu ko womat jëme ko mooy ci xam-xam ak jaamu yàlla ak bàyyiloo ko aada ju baaxut uduhu bil loola waxante wudd sixaar ba muy digal ndaw ñi di leen dénk ne leen yi ndaw ñi bu leen deñ mukk di taqoog nit koo xamante ni day jaamu yàlla dafa jagal boppam ci jaamu yàlla ba noppi nag wëlbatiku bëgg a jagal keneen di wommat nit ñi jëmaleen ci njuba bëgg walaazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ilaa hudaahu qaa'ida ca loola nekk moom sëriñ bi di soññ nit ñi ci xam-xam ngir yéen jëm ci sàkku xam-xam te def ko ngir jëm yàlla tabaraka wa taala yéen ñëpp fa saariu lil ilmi ajmaina li wajhi zil jalali qaasidina nee na na ngeen wuti xam-xam njëkk ngeen di samp seen bopp ngir jiite mbooloo am na kon mooy nga ndigal doo yegg doo yeggale waaye ku bëgg a beru itam beru nit ñi ne da dangay jaamu te boolewoo woo ci xam-xam itam doo yegg kon kay ku bëgg a jiite dangay am xam-xamu diine te jub waaye ku bëgg a beru itam di jaamu yàlla itam da ngay am xam diine te jub ñoom ñaar ñooñu kenn mënu cee ñàkk xam-xam xatta sadduri wal yi bin nafsi lépp diliwaat ko itam ci tasawudu subbaan daana ee eh, waxambaane yi yeewu ci lima ma wax yaa moo li di jub yeewu leen ci ne fi ann sunnata nabiyina al amin alayhi afdalu salaati kulla xiin lii moo jóge lu tax nee na ña juboon ña juboon dañoo dem bàyyi ko fi ña juboon dem nañ ñu jubut des fi te bañ fa desee nag te amuñ jumtuwaay yi la fi ñu baaxe woon di dundal xawaraaf ngeen cee yeewu te xam ko wa tabiatha siyamu suyuuxi dawil huda wan nuuri wa rusuuxi ndaxte mu ne ñépp dañoo bàyyi topp gañ waroon topp jeexiti nit ñu baax ni lañ na ñukk falee dem topp ay bidaa yoo xamante nii seytaane nuru lu baax bi kaqtifaau aathaari salaf li bidain qad ziyinat bayna alxalaf moo tax lam waxoon fële itam waxaat ko fi fasaariu lil ilmi muziniina diina wajha yéen ñi gaaw dem sa ne ci sant sàkku xam jëmmi yàlla rek xam ne nag su ngeen jógee ngir ci sàkku ci xam-xam seen noon bi gën a mag te mooy saytaan jëm bakk bakk seen kanam yéen ñi bëgg a sàkku xam-xam na ngeen ko bàyyi xel ba man koo moytandiku wa man nahaakumu an ittaallumi wa xasibuhu yowma aljazai walwaja ba yeboo seytaane dem noppalu ji ndax lam naroon a yàqu ka leen sàkku xam-xam moo ko yàq mooy remplacer seytaane loolu kon ñu xam ne sëriñ bi xamoon na ne yoonu ñii sàkku xam-xam dana am ay pakk-pakk ak i jafe-jafe nga gis ku jël doomam ne ko doo fi sàkkoo xam-xam boo ko bëggee firee noonu mën nga ko bañ a gis waaye nag bariwaana wayjur woo xamante ni day tegal ndawam doo ba nu sàkku xam-xam baax na waaye ku may nekkal ci sama mbaaram tëgg mi boo demee loola pakk-pakk la gàllankoor la dëgg la néewu ko doo dem waaye nag tegal na ko ku may nekkal ci sama tool yi ku may nekkal ci sama bitig bi ku may nekkal ci lii ak laa ba mu bàyyee sàkku xam-xam lu mel noonu gàllankoor yooyu itam ku koy def yaa ngi dox diggante nit ñi ak sàkku xam-xam te bu boobaa lu seytaane doon yàq yaa ko yàq bi nga xamante ni sëriñ bi digal nañu ñu sàkku xam-xam nag ñu topp kilifa ndax yar munta ñàkk kilifa gu jiite di yare di wane aw yoon ginnaaw bi ñu digalee moom sëriñ bi ci ñu sàkku xam-xam ba am ko nee nag nañ wut kilifa gu mat kon mu ne fa man yurid salaaxal amali fal yarkanan lil awliyaa il kummali ku ju baax ku bëgg soo jëfe na ñu ne sëriñ bi xeet ñuu di sëriñ sëriñ lu te doonuñ ko nu ñuy mel mu ne lenn ci ñoom ñooñu kat fekk ak ji am ay taal waaye te loola lum leen jaral ñu def ko te nëbbutuwuñ ca sax wa baaduhum yarkanu li tasadduri ila riyaasatin bila tasatturi ne ko sëriñ ràññeewu ñu xëcc nit ñi jëmale ci luy andil fitna walam yumayyiz bayna fardin wa sunan wa yajsibul waafitan ma nga day nekk di ñu wax melokaane ñi bëgg a samp seen bopp ngir àdduna di wane ne ay njiiti kilif ko ci ànd ak kenn te bul ànd ak ku dofe bul ànd ak boroomi xemmem téef waxtabir rijaala qabla suxba wala tusaaxib xumran aw daarax ba ndax ku ànd ak ku dofe am xelam matut nam mel la lay melal ku ànd ak boroomi bëgg-bëgg yu bari te lam bëgg jubut itam bu yàggee mu yóbbaale la kon boo dee tànn ab sëriñ bu mat bul tànn ku mel na kooku kon mën nañoo tënk foofu ne sëriñ bi ci yaram bi lam ca jiital mooy digal nañu ñu sàkku xam-xam te sàkku ko ngir jëmi yàlla ñaareel ba digal nañu ñu tànn ab sëriñ bu mat sëriñ boo xam ne jag na ba noppi mën a jagle ku defaru te mën a defare ñu ànd ak moom moytal noonu itam sàkku na ci ñun ñu moytandiku képp koo xamante ni day woote ak cëriñ te amul jumtukaay kon bi wone wopp ji nekkoon ci biir xeet bi wan jumtukaay yi ko fi jële nag te jaar moom soxna yëpp yeesal bi alayhi salaatu wasalaam jàng alquran wattu ko jàng xam-xam ba géeju cee di taalif ay téere ci njëlbeenam ndax suñ la waxee ne jawharu nafis ak mawaahibul quddus ak mulayinu sudur ak saadatu tulaab ak masaalikul jinaan bi mu koy taalif daanaka ñaar fukki at ci la toll ci saay kon teel naa taalif ay téere lool waaye teel naa sóobu ci defar boppam ba mën a am daraja yi mën a defar keneen léegi ginnaaw bi nga xamante ni nag jóg na ba xam jàngoro yi xeet bi ba xam li koy saafara nag ci la jóg nag sóobu ngir jële fi jàngoro jooje ana nan la ko defee nag mooy yeesal su nës yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu waxoon ne ci daraja yonente boobu ci laa yéenee yeesal sunnaam soosu bil mustapha nawaytuma yujaddidu xor ahmad cano itam ne nadaafatuhu kulli min al laxwi tahara wa sunnatahu insaa rabbi ubayinu nee na set ak yonente bi alei salatu wasalaam bu ma ko laabal ci mboolem luy caaxaan te mu ne sunnaam soosu nag su nee yàlla moom dana ko soobu na ci yeesal sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci la waxe woon tam na diine judul diine yi lislaam du diine ja yàlla sant du diine ja yàlla gërëm loo mu dëppoog aayab inna diina indallahi islaam dëppoog wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu nun si yuhmadu indahu wa bihi diine jooju lii ab liggéey moo yeesal ko te jaare ko ci yeesal sunnas yonente bi alayhi salaatu salaam moo tax nag sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu lim doon woote ëpp na tariqa ñoo dem ba mënuñ koo ñàkk wutal mbooloo muy nu mu tuddee ñu ne almuridiya waaye moom lim doon woote ëpp na tariqa ci niñ ko xame woon ñi ko xamoon ku mel ne Cheikh Abdul Ahad Mbakke radiyallahu anhu itam leeraloon na ñoolu nee nañ woon sëriñ bi woote wutoon ab tariqa sosutoon tariqatu euh, suufiya itam waaye daa fekkoon sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu mel ne dafa ràppoon raafoon mu dundal ko wëlbati ko woo nit ñi ne kaay leen jaar ci yoon waa ngi nii kon kooku xamoon na yëngutu bu mag bi sëriñ bi doon yëngu radiyallahu anhu kon ana ci lan la daan woote ak ci lan la doon yare taalibeem bi ak lan moo nekkoon ay jubluwaayam ya mag ak lan la gëmoon moom sëriñ bi leeral na ko nee na moom man moom yàlla la gëm yàlla la jébbal mbiram yépp jaamab yàlla la yonent bi lay liggéeyal billaahi amantu wa wajhi uslimu abdan lahu nabiyi axdimu yàlla laa gëm yàlla laa jébbal sama mbir yépp jaamab yàlla laa yonent bi lay liggéeyal teg ci ne yàlla laa gëm ngir fedd liwaat ko waaye alquran mooy sama téere yonent bi ak alquran tam ci laay tàmbulee ci laay yem billaahi amantu wa bil qurani wa bi rasulillahi bat usaani ba mu yeggee foofu nag ba leeral aw yoonam ba mu leer naññi ba ku bëgg a xam lu leer boo ko xoolee xam ne lii leer na ci la wëlbatiku nag fa yéenee yar taalibe yi naaw bi mu defaroo am garaatu defare kon nan la yare taalibeem yu mag ja la ñuy njëkk a wax mooy laysatil iradatu saadiqa tariqatan mumahadatan bil wurudil jamila ak taalibe gu dëggu yoot yoon woo xam ne dañ caa lal ay fleur yu rafet rek mu neex ku xamut ak taalibe moo koy yombal waaye ña ko xamoon yombaluñ ko te ku xam lii ñuy bëgg a nettali ci ne sëriñ bi ci la doon yar ay taalibeem yu mag ya itam da xam ne fam leen jaare woon jaarale woon yombut ndax moom ci boppam fam jaaroon yombut njëkk nañ ko junj ci njëlbéenu waxtaan wi ndax nee na woon coono bi ma daj doog di am ngërëmal yàlla rëy na kon itam ku bëgg a cof ca ngërëmam loola itam mënoo ñàkk ci ab coono bu mag saara mala min hëj loola ci njëkk mooy ñam doon yar ko nanguloon da aggat kan bañ not seeni bakkan ba nga xamante ne luñ na mën a bëgg teg seeni bakkan ci coonab yàlla jaamu yàlla bakkan ya man koo gàddu muy benn tax seeni bakkan ba bakkan ba lu mu bëgg a teg bakkan yooyee ba bakkan yooyee lu ñu bëgg a gàll ci ak jaamu yàlla lu mu diis diis ñu man koo gàddu loola it nag ku ko dégg xam na nag ab coono tàmbali na ab coono tàmbali na kon ku bëgg a nekk murit saadix tam da nga xam ne ni dugg nga coono bu rëy rëy rëy nag muy benn waaye nan la tàggate seen bakkan yooyee moo ne mu ne bit taj wiyan yi xiif xiifal ko xiif xiif bu metti xiif bu metti lool nag ndax nee na woon fa nafs bil juuci tawili tusjanu wa ma laha qaydun siwaahu yolanu bakkan soo ko bëggee not mënoo ko ñàkk xiif bu mettee metti te yàgg ku xam ba mu doon sañ ci dëkkam bii ak ñam àndaloon ak lañ daj nga xam ne ngoorab dugub ju wow waxtu ba waxtu wa delsi ak kubéeruk setala ci am ndox ba waxtu wa delsi ñooña lañ daj metti na waaye moom mi ko jiite woon tam lam dajoon metti na ñoo ngi tàmbali xam ne yoon wi du yow metti walistix liggéey loo liggéey bu bari te metti duñ toog loxoy kese ak loxoy nen ña àndoon ak sëriñ ñëw toog ne ne cell ak mu noflaay yàccaaral nekkuñ ci benn liggéey daaw mag leen di ci liggéey kon tayel tayel ku bëgg bëgg nekk murit saadix na ko génne ci ay xalaatam te xam ne fa sëriñ bi jawoon taalibeem yu mag liggéey loolu yaram waaye wal xam li ala dikril kathir di leen tuddloo yàlla te tudd yàlla nag la ca jiitu mooy di leen jàngaloo alquranul karim wa afdalu dikri kitaabullahi di leen jàngalu alquraanu karim ndax ñoom ñooñee mu doon tarbiya dalu lëg wi ñuy lënkonte coonab seen yaram yooyee ci lañuy boole di tari alquraan di tari alquraan te mooy sikkar si gën a mag ak di saxoo baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah ak di yëkkati ay xasida di ko daaj loolu kon ñu xam ne méthode boobu coono la tàmbulee waaye ci coono itam lay yemi di jàng alquran di ko tari daari kaa waaye nag saxoo ak laab yombut waaye saxoo ak laab fu njàpp tojee ñu yeesalaat saxoo ak laab kon ñu xam ne laab ku ko saxoo soobu nga yoonu sell soobu nga yoonu set kon loolu ci màndargay taalibe murit ci la bokk mooy saxoo set ak sell ndax bokk na ca jumtuwaay yi sëriñ bi daa yare taalibeem yooyu muy dawaabu tahaara di sax ci ak làpp juróom-benneel ba mooy wal iqtisaalu an naasi dem nangoo dëkk ca digg mànding ma nag nangoo dëkk ca diggu mànding ma ci àll ba fii bi ñu koy ci ay rabi àll doo nga fi nekkoon mu nangu fee ñëw dëkk fi nangu fee andi béyam jax bañ ci ay dëkk nag nangoo jànkonteeku tumuranke bu metti nangoo wéet ngir am yàlla ci jumtukaay yi sëriñ bi daa jëfandikoo la ngir mën a yar taalibeem yi ber góor ñi ak jigéen ñi nag ber góor ñi ak jigéen ñi kër jigéen ñi nekk fële kër góor ñi nekk fële duñ jote dara lu mel noonu itam nag ku bëgg a yeesalaat yarab sëriñ bi itam da koy bàyyi xel di soreel jigéen ñi ak góor ñi nee na ci lii lañ jaar xatta faaqu xayrahum bañ féete kaw ku jaarut fañ jaar ñu waxaat ko muy juróom benn yëf tàggat seen bakkan ci xiif bu metti tàggat setti ak saxoo zikkar di tudd di jàng alquran di jàng xasida saxoo ak laab ak beru ak teqale nag góor ñi ak jigéen ñi ñooñu de ci la jaarale woon ñenn ci ñii may bëgga a tudd du ñëpp de ci la jaarale woon sëriñ Adama Gueye ak Alxaaji Mbàkke Buso ak maam Ceerno Birahim ak Sëriñ Mbàkke Rahmaan Lu Ahmad Mbàkke Ahima Fall ak Cheikh Amsatu Jaxate Cheikh Ibrahima Sarr Cheikh Afiya Buso Cheikh Masamba Mbàkke Cheikh ma Samba Faati Buso Cheikh Mouhamadou Amin Diop Dagana Cheikh Makhtar Bintaloo Cheikh Assou Cheikh Afiya Serigne Mouhamad Amin Diop Dagana Serigne Ahmadou Fa Jama Ñan Serigne Massamba Diop Serigne Assane Ndiaye Cheikh Issa Dieng Serigne Amsatou Diakhaté ak Serigne Modou Gueye Jëmmooy àll Aliou Diouf seex Babacar Ndiaye Cheikh Mohamad Diop Paxa Cheikh Ibrahima Diop Massar ak ñu ma tudd ñu baree baree bare bëri li muñ dañ doon